bonsoir à tous et l'invité de 7TV soir waxtu wi jot na sunu gan yegsi na ñoom plaisir de recevoir tey euh, ci plateau bi Papa Alioune Diallo il est ingénieur au Prodac nekk citoyen thiessois ñu nar waxtaane nag ñaari sujet yu am solo mooy euh, les rapports qui euh, épingle wala qui pointe du doigt yenn gestion yi nga xam ne am na ci régime précédent bi le cas du Prodac dinañ ci ñëw mais également ce qui se passe à Thiès ak le problème du foncier les fameux le fameux quartier wala Mbourkat mu nekk Euh, la nouvelle ville mu ko ne tuddee noonu dinañ ci ñëw ak sunu gan mu doon koo xam ne bu baax a baax xam na dëkk boobee Papa Alioune Diallo ñu ngi lay euh, nuyu. maa ngi lay fay euh, Mamadou Awa di la remercier ci initiative bi nga jël pour aborder ces deux sujets brûlants de l'actualité je dirais. Mmh. parce que tey jii ñu ngi wax publication des rapports ñu ngi wax également mbuurkat. Mmh. ak ville nouvelle noonu nga ko tudd la ville nouvelle la ville nouvelle mm-hmm. donc yaa ngi naan euh, Mbourkat bi euh, ville nouvelle alors que c'est deux zones différentes mm-hmm. donc dina baax tey ji yu mel ne émission yi ñuy éclairer la lanterne des Sénégalais. c'est important donc di la remercier ci initiative bi nga jël. merci, merci beaucoup c'est pour ñun di la déjà ñu def euh, un. Euh, tour de l'actualité jëm ci li nga xam ne mooy les rapport euh, yi nga xam ne génn na depuis quelques jours ñu ngi ci place publique bi mhm. maa ngi koy wax dañuy taxaw ci le cas du Prodac mais avant loolu du manière générale les rapports yi nga xam ne génne nañ ko muy IGE OFNAC ak Cour des comptes ndax ça va dans l'ordre normal des des choses waaw man dama gis ne redevabilité dafa war a nekk dans les règles de gestion et de fonctionnement d'un État. Mmh. parce que bu ñu la dénkee dara war nga sax de temps en temps avant ñu joxe rapport nga génne yow ci sa bopp publier li nga def. Mhm. loolu dafay tax sénégalais yi seen xel gën a dal parce que aussi c'est l'argent des citoyens la ñuy jël. di def des politiques publiques. Mhm. nit ñi am confiance surtout ci yenn programme yi ak yenn euh, action yi nga xam ne gouvernementale d'envergure. Mhm. de telle sorte que man boo ma invité woon fekk ne publier wuñu rapport du mën a ñëw. Mhm. mais ginnaaw autorités yu bees yi jël nañu initiative publier les rapport loolu dina tax nit ñi mën a waxtaan ci mbir yu mbiru rapport yi. Mhm. pas dans le sens sensationnel mais dans le sens juste de la raison. pour que nit ñi. war a mën a xam ne non seulement c'est dans le dans le fonctionnement normal des choses. Mmh. de rendre compte. parce que man fi ma jàngee liggéey j'ai commencé dans le privé. Mmh. après ma liggéey dans les programmes de la Banque mondiale mais foofu c'est tout à fait normal et c'est publié dans les sites. li nga def accessible à tous c'est accessible à tous. même les mhm. salaires. ah au mhm. niveau de la Banque mondiale je me bi ñu may recruter dañuy am fu ñuy tuddee cost mhm. léegi yow nga dem consulter foofu bu xam sax salaire bi nga xam ne mën nañu proposer avant ñu mm-hmm, mm-hmm. nga négocier. mais fii nii boo tuddee salaire rek. ça devient quelque chose de très sacré. souvent même ñi nga dëkkal sax duñ ko xam. léegi il faut que mu bokk suñu fonctionnement ba nga xam ne dañu évoluer dans le sens de bu ki liggéey ci dara. Mm-hmm. war na mën a rendre compte. Ah, bu boobaa euh, dafay dissuader même. dafay dissuader ñi nga xam ne dañuy bëgg a def lu ñaaw. Mhm. danañ xam ne kat ëllëg. dañuy publier les rapports waaw exactement mhm. donc c' est des mesures yi nga xam ne. Mhm. je pense que euh, am na benn côté positif. loolu la benn côté négatif mooy waroon nañ mën a peut-être ne donc li passé passé na. mais pour des mesures préventives maintenant lépp li nga xam ne nit mu ngi koy gérer danañ ko publier ngeen xamee ko noonu. bu boobaa dina dissuader nit. à aller dans le sens. mais mais est ce que est ce que loolu doon na am njëriñ dans la mesure où président Sall bi muy installé c'est ce qu'il avait dit l'OFNAC c'est pour nous. Euh, mais au bout du compte gis nga li ci xew yëpp. et d'ailleurs loolu loolu ça me permet de dire que les rapports de l'OFNAC. man bi ma mhm. ko gisee je suis un peu dessus quand même. ah ah oui oui dessus. parce que ay rapports séminaires nga ciy gis. dem nañu sali def nañu bëriwul importance exactement mhm. on attend des rapports d'enquête ça pas des rapports d'activité mhm. jënd nañu agenda on a formé les gens et cetera non mhm. on attend des rapports d'enquête c'est ça qu'on attend de l'OFNAC oui c'est plus sérieux voilà et euh, épingler le terme me semble assez fort des fois xam nga sénégalais dañu tam way def naa révélation bii nii man en tant que cadre supérieur dama koy dama koy magal sama bopp mhm. je ne suis pas là pour faire des révélations mhm. mais je peux parler des faits mhm. aujourd'hui yi nga xam ne ça n'indexe personne ça ne touche personne mais c'est dans le sens aujourd'hui demain bu ñuy nar defaat ñu bañ a yegg ci ah. yu demee noonu li ñuy waxtaanee le cas Prodac am na solo trop mais juste une dernière question avant ñu si dugg d'une manière générale ces rapports yi génn ak li ci xew yëpp li gis ko gisee qu'est-ce que vous vous êtes dit oui, le contenu oui j'étais en même temps euh, Euh, déçu de savoir que y a certaines choses qui se passent dans ce pays quand mhm, mhm. waaw euh, et waruñu woon xaar sax ba ñii di ñëw le nouveau régime ñu di ko découvrir parce que comme comme vous venez de le dire le président moo ne woon Lofnac c'est pour nous mhm, moom wax na ne teg na ci loxoom dossier yu bëri mais c'était l'occasion pour lui de sanctionner ne serait-ce que aujourd'hui mu jëlee ñooñu ci poste yi ñu nekk. bien sûr loolu c'est important carnage bi doon a taxaw en fait exactement c'est une forme de sanction. Mhm. c'est une forme de sanction mais souvent aussi boo xëy na ci ñëw. Euh, man bu may waxtaan ak moom léeg-léeg dangay gis nit ki nga xam ne des fois il apprend des choses en même temps que nga koy wax. ah oui oui oui ça ça je vous le dis hein. Mhm. Euh, je vous donne juste un exemple euh, toog nañu mu invité ma këram man toujours ma invité damay damay yóbbaale kenn pour bañ a rus. di ko wax yenn yi. Mm-hmm. dañuy discuter sur les sujets brûlants de l'heure. c'est important loolu moom moo koy amal njariñ. Euh, xam naa ne ki may wax mu may mu ngi may seetaan mais dama ko wax ma ne ko mais président yow en 2017 en mu invité ma. Mm-hmm. fii Mermoz. ne ko mais président yow euh, jëloon nga engagement en 2017 pour régler le problème des cheminots. Mm-hmm. mu ne ma mais c'est réglé. alors que ça ne l'était pas du tout. et ce jour-là je me rappelle il m'a demandé de prendre le dossier me remettre ko kenn du ma tudd tur. mais ñi ko fekkee xam nañ li may wax. parce que c'était une réunion politique au palais en ma interpellé ko ci question bi mun euh, am ay nit ñu nekk foofu. Mhm. des ministres de de de hauts ñu ne le problème est réglé ma ne ko président sauf pour le respect. Mhm. le problème n'est pas réglé parce que à 16 heures j'ai parlé avec le DG de Transrail. Mhm. et un syndicaliste bëgguma citer turam. ma ne ko xaw ma woon ne sax tey dinaa la gis. il a dit mais c'est quoi ça je fait état du dossier. mais ki mandoom président xam lu ma wax mu ne jëlal ma ko dossier bi nga joxal ma ko premier ministre yàlla na ko yàlla yërëm Mahammed Boun Abdallah Dionne bi may génn Boun Abdallah yàlla na ko yàlla yaram daf ma dab ne ma pap fexeel dossier bi ma jot ci guddi gi mhm, pour ma liggéey ci ci guddi gi ba le lendemain à 13h envoyé ça à son directeur de cabinet defal ko situation bi yëpp mu recevoir ma parce que dama jéngu ma génn parti bi mhm. en fin dama génn parti après mu woo ma ñu waxtaan bi ñuy waxtaan ma ne ko président da jël ay mesures des fois jox ko sa nit ñi. Mhm. mais du du yegg. du yegg fenn du yegg fenn. Mhm. mu ne ma nox sa problème moom dans sa tête c'est réglé. il m'a dit je parle sous le contrôle de quelqu'un qui est certainement en de me regarder. Mhm. il m'a dit c'est réglé. et c'est malheureux en fait ça n'a c'est c'est pas arrivé qu'à lui. Oui. avant lui Ablaye Wade doon na connaître yu mel noonu Abdou Diouf pareil. exactement ah, que en fait moi je pense euh, li ñuy wax rek les rapports ça ne doit pas être des rapports euh, circonstanciels ça doit yi nga xam ne un premier ministre war na mën a am ci ku koy ju koy jàppale mhm. des conseillers chargés un premier ministre peut avoir jusqu'à 17 20 conseillers moi parce mm -hmm. qu'il mhm. avait un, un ministère très large exactement et ça l'aidait aujourd'hui à diligenter des dossiers parce que mënuloo suivre chaque dossier mhm, à la loupe mais war nga mën a xam l'état d'avancement de chaque dossier. ah léegi euh, pour les rapports avant même maa ngi koy wax vous êtes ingénieur au Prodac. Mhm. avant même que rapport di génn bii nii euh, xëy na am na lu ñu ci wax. Mhm. mais c'est une boîte à problème loolu loolu lay loolu lay ndiru. et les wow. Sénégalais dans leur entendement. Mhm. rien ne va au Prodac alors que initiative bu noble la. bu aboutiroon nit ñi dinañ am satisfaction ci domaine yu bëree bari oui c'est regrettable. parce que man tey jii je suis le plus ancien. Mm au au niveau du Prodac. matricule 4 foog naa muy jiitu à chaque fois. alors euh, c'est regrettable parce que bi ñu may woo euh, may remercier encore celui qui m'avait appelé pour l'appuyer pour que ñu liggéeyandoo ci projet bi. Mhm. boobu temps on venait de quitter le cabinet après une euh, un remaniement mu ne ma dama bëgg nga ñëw liggéey parce que xam naa sa rigueur et cetera. Mhm. bi ñu ñëwee j'ai trouvé ce projet magnifique. avant même qu'on ne nous fasse des contrats. Mm -hmm. avant même qu'on ait un salaire. on est sur le terrain parce que hivernage mu ngi doon approché ñu dem man maa yóbbu woon 42 techniciens ñu ngi leen jëlee centre de formation horticole yóbbu leen à CFA dans des conditions difficiles. Mmh. on s'est dit on va s'engager c'est un bon projet. les jeunes y croyaient les jeunes commençaient à tomber malades. je me rappelle très bien hivernage bi les conditions parce que amuñoon fu ñu loger mm-hmm, mm-hmm. dinaa ci ñëw léegi pour wax la aujourd'hui les gens yi wax de de de façon sensationnelle il faut que ñu xam projet bi d'abord mm-hmm. pour xam lan moo tax échec bi cour des comptes wax. waaw loolu la ñu bëgg a xam en fait. parce que c'est un projet boo xam ne. c'est très important même l'opposition de l'époque nangu woon que ne lu baax la. nangu nañ lu baax la. Mhm. mais booy mesurer performance da ngay xaw ci schéma de performance bi. Mhm. quelle est la faille. parce que ñu ngi wax vingt neuf milliards tey. Mhm. mais du vingt neuf milliards. on est à trente huit milliards par exemple pour ce projet là bu ñu fay mais trente huit milliards kenn mënu ko détourner vingt neuf milliards kenn mënu ko détourner l'argent en réalité n'a pas été détourné. les fameux vingt neuf milliards. non ça n'a pas été détourné. qu'est-ce qui s'est passé. alors ce qui s'est passé réellement c'est que bi ñu yóbbee xale yi foofu c'était une campagne. Mm-hmm. ñu gis ne les conditions n'étaient pas réunies mais on a fait une campagne euh, bi ñu dellusee il nous fallait trouver des financements. Mm-hmm. ñu dem avec les Israéliens ñu discuter sur un document technique et finalement on est trouve tombé sur l'élection de quatre DAC. mais cadre DAC ça signifie quelque chose qu'est-ce que c'est qu'un domaine agricole foofu la problème bi nekk un domaine agricole dans le document qu'on a vendu au président de la République oui. c'est de mille à cinq mille ectare d'un seul tenant mooy benn DAC benn DAC oui benn DAC normalement li gën a tuuti mille ectare la mhm. bala ñu tabax un DAC dañu war a tabax d'abord huit cent logements pour ñan ñi fay liggéey pour ñi fay liggéey ñu nekk tout près ñu nekk tout près ok léegi nag boo xoolee document conceptuel bi c'est que l'opposition vous pouvez parler mais da ngeen wax ci xam-xam ci base xam-xam mais tout c'est oui oui les gens 29 milliards et mais aujourd'hui bon ce qu'on dit Mame Mbaye Niang a détourné 29 milliards point. non ni plus ni moins. je suis pas là pour défendre Mame Mbaye ni non ñun kay comprendre c'est ça qui important mais moi je suis un technicien. moi je reste technique. je reste technique les les mhm. bi ñu ko gisee gis ne 1000 hectares 300000 emplois. il fallait diviser ces 1000 hectares la en ce qu'on appelle des unités autonomes d'exploitation rapport Cour des comptes ñëw na ci mhm. ne il faut créer les unités autonomes foofu ngay jël vous créez des ce qu'on appelle des sociétaires sociétaire bu nekk nga jox ko benn hectare mm -hmm. c'est ça qui multiplié va donner les trois cent mille emplois c'est un schéma qui est très bien monté sur ban ban ban délai cinq ans sur une durée de cinq ans d'accord alors bi ñu trouvé financement yooyu ñu man j'étais pour que ñu commencé benn dak déjà. Mhm. pour au moins am benn modèle. apprendre de ça. bien sûr man man j'étais j'étais pour ça. Mhm. alors bi financement yi génnee moi j'ai été relevé de mes fonctions. Ah. de suivi. parce que quand même bon je je ne sais pas pourquoi hein. Mhm. du ma dugg ci yenn détails parce que quand même bon xëy na dafay dafay xóot. mais ñu jël ma ne ma je dois m'occuper des institutions finalement mais le suivi rigoureux bi ñu waroon def sur le terrain amul. et à la décharge bi mu wootee fekk ne mu yëg tuuti problème mu woo ay kilifa du tudd seen tur fii pour wax la toujours rek le président il est mis devant les faits accomplis problème day am ba pare mu soog ko yëg bi mu ñëwee mu xool devant voilà certains kilifa du ma tudd seen tur des ministres ak pour le premier ministre mu ne leen mais yéen quest que c'est qu'un cœur de DAC c'est là où apparaît le terme de cœur de DAC mm-hmm. alors on parlait de DAC de mil hectares et là on par de 130 hectares dañ ko wàññi réduire ko presque de dix. alors là le président séance tenante il a constaté que. même les bureaux de contrôle qui devaient faire le contrôle sont venus après. Et à sa le président de la Macky Sall a fait arrêter les bureaux de contrôle séance tenante. Il a dit qu'on arrête les bureaux et qu'on fasse appel à des organismes comme Veritas pour contrôler ça de façon rigoureuse. Parce que quand tu parles de cœur de DAC, et l'autre chose, c'est qu'on avait parlé et d'aménagement. étude et aménagement il y a jamais eu d'étude mhm. loo deful étude aménagé directement waaw mais loo deful étude di di nga def sept ans doo terminer mhm. les aménagements où sont les aménagements où sont les aménagements or aujourd'hui moom laa bëggoon sax Cour des comptes génne parce que quand tu parles d'unité autonome tu parles d'aménagement mhm. foofu loo bëggoon ñoom ñu génne ko ne aujourd'hui le contrat avec Green 2000 c'était sur ces vingt neuf milliards pour une durée de huit mois d'exécution aujourd'hui on a on est à plus de huit ans donc lu amul étude. les neuf milliards devaient servir. les vingt neuf milliards devaient servir aujourd'hui à mhm. mettre et des aménagements hydro-agricoles. d'accord c'est ça le pire. les études et parce que boo nee étude. Mhm. il rapport d'étude. de rapport d'étude. donc c'est là où se situe le problème. oui parce que boo defee rapport d'étude di nga xam ne exactement aujourd'hui li ñuy dab toujours parce que moo tax ma ne le Sénégalais ne lise pas. Mhm. rapport les gens ne que oui Ibrahima Sissoko jël na indemnité te indemnité yooyu naa ci dellu si il en a droit Ibrahima Sissoko au même titre que moi recevoir ma ko recevoir ma ko. Mhm. mais c'est ce que la BID avait accepté par avis de non objection parce par surcharge de travail mais il faut lire le que. ñoom il parle de de mise en place des unités autonomes d'exploitation qui représentent les aménagements à mettre mm -hmm. qu'est-ce qu'ils ont construit en lieu et place ils sont ont appelé ça un cœur de DAC un cœur de DAC c'est un centre de service qu'ils ont construit quelques serres un, un centre de formation ils ont mis des tracteurs pour que ñu mën di ko jox les producteurs qui sont au niveau de cette pour pour pour celui qui regarde. Mhm. pour mën a comprendre ce qui s' passé wala le problème ak les milliards. Mhm. lan la réellement rek maanaam milliards yi fan la waroon dugg te dugg fa wala fan la dugg te amul résultat wala fan lañ ne dugg na fa. te alors que dañ ko téye. en fait en réalité aujourd'hui avec les intérêts. Oui. ce même pas milliards c' milliards que l' pas ce qu'on voulait. Mhm. Le contrat qui a été signé avec Green 2000. Mhm. C'était des études et des aménagements hydro-agricoles. Oui. Mais man par exemple bi may découvrir que ne c'était 130 hectares fekk ne euh, les gens ont exécuté pendant trois ans moi mi nekk ci comité de direction. Mm -hmm. je n'avais pas le contrat. c'est ça la réalité des faits et d'ailleurs bëggoon naa Cour des comptes ci loolu le plus grand déficit la en fait la la, plus grande faille qu'il faut mhm. corriger qu'il faut corriger à mon avis oui. c'est que les coordinations se tiennent c'est-à-dire que quand le comité de direction n'est pas au même niveau que le top management le le, y aura un problème parce que bu ñu toogee six mois wala un an tenir ñu réunion de coordination mhm. mais wax nañ ko ci rapport c'est du pilotage à vue à vue, ouais. c'est du pilotage ils l'ont dit mhm. c'est-à-dire que au lieu que ñuy point c'est pour cela je veux mhm. que on parle Euh, pour ce cas présent. exactement les responsables dañu ko doon situé fan lañ fan lay féetee. voilà bu ñu bu ñu responsabilité moi je pense que y un examen juridique et technique qui a été soumis à la DSMP. à ce niveau là l' inspection générale des finances bi mu ñëwee waroon na les modifications ont été apportées. Mhm. et pourquoi on est passé de hectares à hectares. parce que un projet de façon standard. Mhm. c' trois choses c' le périmètre du projet. c' la durée du projet. Mhm. et c' le budget. boo boo ci laal rek day laal ay impacté benn. boo laalee ci périmètre bi dafay impacté. ci biir bu ñu ko jëlee 1930 nga yàq lépp déjà eh, eh, exactement. Mhm. et aujourd'hui euh, même les forages même les forages. Mhm. yi yi nekk par exemple CFA CFA ça a été inauguré mais ça ne décolle pas malgré toute la bonne volonté qu'un coordonnateur voudra avoir aujourd'hui mënu ko lancer parce que même les forages c'est le Prodac qui a pris ça en charge alors qu'on parle d'études et aménagement hydro-agricole. Est-il encore possible de corriger pour dellu ci li nga xam ne moo ah nekkoon bu initial bi ah, ah oui et très vite. Ouais. et très vite il, faut, des solutions très rapides. Mm-hmm. aujourd'hui da ngay doo doo doo continuer ce qui est en train de se faire doo continuer ce qui est en train de se faire mais rectifier aujourd'hui mm-hmm. en partant de l'existant mais avec un modèle à construire un modèle ba ngay apprendre de ton modèle. boo amee benn modèle au niveau d'un domaine agricole avec un espace peut-être de cent hectares wala deux cent hectares mën nga extrapoler vers les hectares. Mhm. parce que tey jii boo jëlee Notto Diobass on nous a affecté deux mille cinq boo jëlee tey jii euh, Dodji on nous a affecté deux mille cinq cent c'est des espaces aujourd'hui qu'on parvient pas à utiliser. Mhm. or c'est un potentiel qui est voilà donc ne reste pas beaucoup de temps malheureusement yaa ngi naan mhm. euh, les sénégalais ne lisent mhm. euh, te boo seetloo rapport bu génn récemment euh, li ñu ci seetlu mooy que ne Ibrahima Sissoko avait un salaire de tel indemnité temps Pape Malick Ndour s'est attribué comme si moo defal boppam foofu aussi on a besoin de comprendre lan lan lan mooy dëgg ak dëgg loolu yëpp moom laa lay wax la on est dans le sensationnel en mhm. le projet moom les projets de deuxième phase c'est un bi ñu toogee ak ñoom dañu waxtaan ak waa BIT. Mhm. ñoom ñu considéré ne une surcharge de travail parce que c' un projet qui nous a rattrapé le SPM parce que Sissoko c' est un spécialiste en passation de marché. Mhm. les gens devraient en recruter pour lui payer un million francs de salaire. ñu ne pour la rapidité des actions puisque lui il connaît le Prodac. Mm -hmm. la BID a envoyé un avis de non objection pour dire que on l'autorise aujourd'hui à avoir une indemnité de et à la réunion du avril. Mhm. en ce temps là j'ai été nommé directeur du système d'information j'ai fait une présentation au Radisson. Mhm. d'ailleurs on a tenu une formation ak ñoom ñu wax ñu ne. Euh, ils étaient contents des outils que nous avions développés au niveau de la direction. Mhm. un montant de deux cent millions une ligne qui n'a jamais été mobilisée d'ailleurs ah amuñ jot pour pour ñëw ci mais lors de cette réunion c'est ce qu'ils ont dit mm-hmm. ils ont dit à la discrétion de l'unité de gestion de projet toutes les personnes qui interviennent et d'ailleurs mais loolu la Cour des comptes wax mm-hmm. nee nañ dindi discrimination boobu mooy y a une discrimination pourquoi ñu jox ko ñett nit joxuñu ko ñi ci des te les gens interviennent ko defar yóbbu ko banque boobu noonu encore euh, e-, e-, Ecobank nu mu tudd Ecobank je crois. la tudd man maa defar plateforme bi ak sama équipe toutes les implantations là au niveau des régions pour la la géométrie mais ñun ñoo ko defar les applications ñun ñoo ko defar le suivi évaluation ñun ñoo ko démarré. en recrutant le responsable surévaluation et pourtant bokkul woon ci suñu contrat et d'ailleurs si vous voyez contrat parce que Sissoko a un contrat en bonne et due forme mm-hmm. loolu on devait l'évoquer c'est-à-dire que peut-être que ni ko Cour des comptes indee xëy na mooy mooy kii mais dañu wax ne effectivement il faut enlever cette discrimination d'accord malheureusement il ne pas beaucoup de temps il faut qu'on parle de parce que bi ñuy commencé Mbourkat. Mhm. am na Kër Moussa. ok une partie de Kër Moussa. fait parce que Mbourkat il faut partir des lotissements de 2006. Mhm. il y avait des lotissements mais bi ñu ko defee ba pare c' était bi ñu ko defee ba pare Eaux et Forêts dañoo ñëw ne yéen amu leen droit toog fii. Mhm. le temps que gars yi di régler problème bi am ñu jaar ci suuf. jaay ko parcelles yooyu. waaw soixante de ces parcelles là ñu jaay ko ñeneen ba ñoo ñu commencé. mooy doon démolition yi exactement. léegi président bi mu ñëwee en 2017 pour l'inauguration du KM de KMS 3. ces gens sont venus se manifester pour dire que ne ñun dañ fi war a am. président laaj gouverneur si bi fa nekkoon lan la mu ne mu expliquer problème bi ñu ne léegi kon nañ leen jël def procédure bi nga xam ne dañuy déclasser cette forêt la moi je ne suis jamais d'accord pour que ñuy déclasser ay forêts parce que aujourd'hui Thiès et une ville qui étouffe. Mm -hmm. avec aujourd'hui le co qui qui qui qui est dégagé yow boo dugg see Thiès tey jii embouteillage yi fa am. tey jii waroon nañu mën a jël forêt classée tey jii def benn forêt bi nga xam ne comme ni ñu defee à l'image de Thiès est la seule ville de, de du Sénégal où il y a une rue sans soleil. Mm-hmm. parce que c'est ça la mm-hmm. vérité. il faudrait que ñu répartir la ci mm-hmm. Thiès. donc aujourd'hui il faut qu'on reparte. de ces initiatives là de pour refaire Thiès. Thiès bu tawee tey jii dans deux mois. mais chambre de commerce côté boobu yëpp dafay taa. y' a des zones yi nga xam ne tey jii boo demee Mouride ga Daaru Salaam et cetera mënu faa dugg. Mhm. donc tey ji on devait en profiter pour jéem a seet nu ñuy aménager des zone pour étendre Thiès à ce niveau là au niveau de Mbourkat. Mhm. ma dellu si waat ci ci ci loolu noonu yaa a 600 enseignants yi nga xam dañ leen joxoon ci ZAC ba au niveau de ZAC. Euh, ZAC bi nekk waa Ngent bi ñooñu dañ leen joxoon papier fekk ne suuf amu fa. Mhm. ñooñu ñu profité boole leen ci. ok donc bi loolu amee. c'est un peu le cas aussi de Pape Diop qui dit que dañoo loolu la wax voilà c'est a la mhm. que un Thiessois wala quel que soit le citoyen ñu yëkkati cinq hectares dix hectares di la jox yow kese. loolu ce n'est pas normal du tout. du tout normal ouais. maintenant le donne à certains maires xam nga ñoom sumay rakk la ñu quoi Babacar Diop suma xa rakk la. Mhm. Ousmane Diagne suma rakk la. donc ñoom ñëpp may rakk lañu. donc bu ma amee conseil bu ma leen jox. mooy bu ñuy kaas parce que bi ñuy kaas ñoom pour wuti ji suuf soosu. Mhm. dañoo wax population yi ne ñun joxuñ ñu. bi ñu amee aussi dañoo waroon ñëw population yi ne jox nañ ñu. léegi on ouvre ça. mais justement est-ce est la ligne de défense du maire. Mhm. Euh, mën nañ ko dégg. j'ai pas donné de nom parce que y a des religieux. y a non non non il doit il doit il doit. parce mhm. que les chefs religieux yi mu wax il doit nous donner des noms. xam nga mais man du fi nekk naan ko officiel officiel yi parce que man lii laa yor parce que nous avons des informations de parce que tam doomu Thiès nga doomu Thiès la bu ñu sañoon dañ ciy am non au delà de la au delà Mamadou Awa au delà de la transparence l'intégrité hmm, c'est-à-dire que aujourd'hui kan lañ koy jox parce que tey jii au niveau de la mairie kan ak kan lañ ko jox c'est important parce que on parle de chef religieux man na ci. Hmm, à mon petit frère le docteur Babacar Diop je lui demande d'afficher pour dire que ci loo boobu laa wax de ci loo boobu 520 et aujourd'hui aujourd'hui pour dérap mais aussi pour transparence pour mhm. intégrité aussi de cette affaire là mhm. parce que aujourd'hui il a 86 conseillers il dit que 50 xaw ma et sur quelle base pourquoi les citoyens n'ont pas été invités au même parce que aujourd'hui ñoom bi défendre ça dañu ñuy jouer cette carte là. parce que dañu hmm. ñëw utiliser les Thiessois ba ñun ñëpp ñu jàppale leen. parce que man hmm. bu baaxee ñun ñëpp la baaxal. Hmm. c'est notre fierté. tey jii bu ñu nee dañ leen jàppale parce que dañu war a ci suuf ñu wutal leen suuf après ñëw ñu waat ci biir avec les Thiessois pour dire que ne jot nañu te kat nii lañ koy defee. c'est ça l'intégrité. Et aujourd'hui, en quoi ils sont plus méritants que le conseil départemental mmh. qui le conseil départemental Siré Dia Siré Dia qui pourtant pour était du pouvoir le maire Momar Ciss qui a eu à offrir 2329 parce que boo bu bul fàtte ne gis nga tey ji même euh, le kii présidentiel le salon présidentiel à l'aéroport mhm. mais fait fait partie de Kër Moussa mhm. on a déplacé ay des cadavres pour pouvoir installer le salon présidentiel. Wow. C'est ça la vérité. Donc ne serait-ce pour ces sacrifices-là, aujourd'hui les gens doivent mm-hmm. en faire des choses d'utilité publique. Voilà, mm-hmm. donc li ma doon wax daal mooy véritablement euh, bu ñuy waxati bu ñuy wax dans le sensationnel. Mm-hmm. nañuy wax li nga xam ne mooy jéem a avancer réew mi. parce que y a eu des morts sur l'affaire Prodac. et ñun on a des familles. bu ñu toogee ne 29 milliards dañu ko ko jëlee. <laughs> yi nga xam ne il se sacrifie sous le soleil au niveau du Prodac c'est parce que aujourd'hui les rapports n'étaient pas publiés qu'on ne pouvait pas en parler mhm. koo may xaalis sax mu kii j'étais parti voir le marabout de Medina Gounass mais bi ma ne fi ngay liggéeyee sax mënu ko wax ne Prodac laay liggéey parce que mbooloo ma ngi toog dama ne ministère la jeunesse laay liggéey keroog maa ngi joxee maa ngi joxee sama carte carburant mhm. le pompiste qu'est-ce qu'il me ndax yàlla ma lekk ci xaalis mais on nous prend pour des voleurs que nous ne sommes pas. c'est dommage merci c'est la vérité. jërëjëf Fapal Youn Diallo ñu ngi lay sant bu baax baax c'est plaisir pour ñun mu nekk ingénieur au Prodac nekk citoyen Thiessois di daje incha suba 19h30 loolu le 20h c'est dans un instant ak Germaine Diouf Tabara Diop jaa ngeen jëf merci merci beaucoup.